moo koy xarit yi ngi leen di nuyu fii ci Lougaré TV bisimilah ci euh, tënkum xibaar yi ñu door ko lu jëm ci wàllu politique euh, la ci gën a fas bokk na ci kii di Ousmane Sonko moom nag ni ki demee ma nga doon euh, jànn ak taskatu xibaar yi la ko soxaloon moo di dafa bëgg indi nag beneen forme de lutte maanaam beneen xeex ngir nag xeex fi ajustement yi nga xam te ni régime bu Macky Sall ma ngi koy doxalee leader bu Pastef bi la yoon ñami woo askan wi moo dina rek ku ci nekk na nga taxaw fa nga nekk nga yore ay marmite wala sax lu mel. Manam maanaam di rek tëgg foo tollu ngir nak di dénoncer manam boole li nga xam moy forfaiture yi nga xamni régime bu Macky Sall mang koy doxal fi ci kaw askan wi mom nak Ousmane Sonko niki la mel ci kanamu taskatu xibar yi ñu né rendez-vous askan wi euh, ci alarba gi euh, nak ngir wat euh, bopam ci mbedd mi ba ci xibaru rek walum politique gi ñu wax léne itam ki di rek Déthié Fall mam ak maire bu Géejuwaay di Ahmed Aidara ñoom nag ndiki démb lañu fanaan seen guddi gu njëkk ca kaso bu Sébikotane ñi ñu ko xamal mooy suñu naataango yu Source A ñoom loolee la ñu xëyee tey jilee di ñu xamal ni itam ne rek daan leen jugé nag ci flagrant délit ni ki suba ñoom ñaari député yooyee lu jëm nag ci wàllum kii di Ahmed Aidara moom ni ki aljuma lañ ko war a nag wax fan lay féete moom it dañ ko jugé ci flagrant délit ama nga ko dañuy joxale tënkum xibaar yi ak ak wàllum éducation jàng ak jàngale ku ni ki suba ci àllarba gi di examen euh, bu CFE ak bu en sixième euh, ñoom nak élèves yi ñu war dem nak ci bërëbu ngir nak épreuve ni ki suba lañ koy euh, la xamal direction des examens et concours moo de lépp yem ngir nak mën a examen ñu ngi xamal itam lu ëpp junni élèves war subir épreuve ni ki suba maanaam rek dañuy leen chance ñoom élèves yooyu nga xamni ni euh, ndiki suba war nañ def euh, sen examen CFE ak entrée en 6e mi ngoog mbokk yi li mo fi gënoon fess ci tënkum xibaari dañ leen jox rendez-vous fi lek 13h ak yeneen di xibaar jaa ngeen jëf Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Lugaré TV. Il est 11h et c'est parti pour les brèves, euh, un bref survol de l'actualité. Alors nous démarrons l'actualité avec euh, Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui aujourd'hui utilise une autre forme euh, de lutte en conférence de presse. C'était ce lundi, le leader de PASTEF a invité tous les Sénégalais à un concert de casseroles et de marmites. Selon Ousmane Sonko, c'est pour attirer l'attention de l'Afrique et du monde entier sur les agissements du régime de euh, Macky Alors pour rappel, le leader de PASTEF a encore donné rendez-vous à tous les Sénégalais. Ce sera ce euh, mercredi 22 juin à partir de 20h. Alors autre actualité, toujours politique, euh, parler donc des députés d'Ekefal et Mam Fam ainsi que le maire de Guéjuay, Ahmed Aydara. Je rappelle qu'ils ont passé leur première nuit et c'était hier à la prison de Sébikotan. Alors c'est ce après une audition des procureurs hier. Alors rappelons qu'ils seront jugés en flagrant délit demain euh, pour le sort de, euh, des députés Mamdiara ainsi que euh, Fall Et quant au maire de Guédioua, Ahmed Edera, lui son sort sera réservé ce vendredi. Lui également sera donc jugé en flagrant délit au tribunal de Pékin Guédioua. Et là nous terminons l'actualité avec éducation, donc la direction des examens et concours. donc a pris toutes les dispositions position utile c'est pour le bon déroulement des examens et concours du CFE et de l'entrée en sixième. Alors, euh, prévu ce mercredi 22 juin, euh, rappelons que 296 395 élèves vont subir ces épreuves euh, du CFE. Alors, ils sont répartis sur les 1084 centres sur le territoire national. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Euh, de 11h, rendez-vous, ça sera à 13h pour euh, donc euh, le tout animage Et bien sûr, rendez-vous très prochainement.